présenter les grandes lignes ci bilan wu màggal euh, ñu commencé donc ci kuréel gi nga xam ne xalif général des mourides moo ko taxawal ren ci biir comité d'organisation bi di unité d'alerte et de prévention des épidémies euh, du Grand Magal de Touba édition 2020 bi doon la première fois ñuy liggéey muy kuréel boo xam ne fekk ak fagaru ba lépp luy feebar buy law ba ñu am place ci màggalu Tuuba léegi nag xam nga ren ci li xew ci jamono ji xew ci réew yépp xew ci continent yépp euh, doon mbas mi gën naa amal solo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 c'est important parce que épidémie bi li koy refléter aussi évolution ak sévérité am cas grave la ñu compter 205 15 jours avant la màggal mu doon 16 76 plutôt 15 jours 14 jours après la màggal 205 14 jours avant après màggal 76 décès yi 10 décès 14 jours avant 7 décès donc li ñuy wax indicateur épidémiologique Covid bi.